voilà ba pare di la violé ñetti yoon ñeenti yoon di la forcé di tëdd nga naan ndaw si ah. génnal ma tëj googu te ñu ngi lay yoole te xam nga ne bu génnee booy tëj mu tëjaale la kooku musiba loolu xel mënu koo nangu xel mënu koo ñu lay tëddee nga naan ki nekkal génnal mënta ne loolu la capitaine Touré wax kon bu ak jàmm incha allah yéen daal toog leen mais tey moom affaire yi mënta leer Ah, tey mënut a sotti d'accord faw ñu ñibbi ba suba ah témoin yi jëkkër Ndeye Khady mooy bëgg a des euh, waa ji ñëwul mm-hmm. borom oto bi mm-hmm. témoin yii nii voilà parce que vérité dëgg rek lañ fiy wax ah tey moom dëgg rek boo leen posé cinq questions mm-hmm. nga indi waat ko posé waat ko yeneen cinq waat même mes questions da lay répondre même même réponse mais nag voilà ah, déggoo lu ma la wax saa xanaa yéen dëggu wala a jox ko jox ko allez laa constaté ci biir salle hmm. que avocat Ousmane Sonko def hmm. parce que ñii ma gis. attanuñu avocat ñu Ousmane Sonko. mais bu ñu fi toogoon itam amuñu droit à la parole. non même bu bu ñu amul doole. amuñu droit à la parole. non parce que xam nga. parce que euh, seen soo gisee ku mel ne ay Sidi Abdou Mbaye bi wax. Hmm. da ngay gis bu waxee commencement du cohérent ak muy fini. lan kii wax du cohérent ak kii cest à bon. avantage euh, avantage wu euh, ñoom la mais tey jii bu Ousmane Sonko teewoon ak avocat yi non xaj ñu si ñi non parce que boo xoolee euh, seen condition mentale par rapport ak ñi nga xam ñooy témoins yi non du benn sax parce que boo xoolee même maître El Hadj Diouf il a du mal à poser des questions ay clients am pour canaliser leen donc bu avocat Ousmane Sonko koy taxawoon donc ñii duñu sax fanaan parce que tey lii boo xoolee arrangement parti bi la mais ñi tey bu ñu désisté woon sans Ousmane Sonko ñoo taxaw rek wax ñu ñii rek non y' a beaucoup d' erreurs. man day xadi dafa wéet. parce que erreur boobu rek la gars yi defoon il fallait que ñii ñëw affronter ñii parce que ñii bon amuñu doole boobu quoi. amuñu kilo rek réponse sax mais si si Mamour Diallo bi waxoon ni moo jëli kii bi foofu leeral nañ fi loo xam ne man xam ma woon. ndax dañ ne dem jëli Adji Sarr yóbbu ko hôpital looloo mais eh, am na foo xam ne nangu fa répondre El Hadj bi donc fi ñu ko fi ñu ko laajee def nañ leen ndax euh, test ADN bi mhm. est-ce que euh, ci biir test ADN bi ñu defee test bi est-ce que am na ay spermatozoïde euh, spermatozoïde prélèvement ah, yi donc il a répondu bi temps bi test bi ñëwee amoon na ay sperme yu nekkoon ci biir parce que xam nga foofu leerul. Ah, waaw parce que tamit foofu posé nañu question yoo xam ni moom il n'a pas voulu répondre nee na li mu doon wax wax na ko donc xam naa devant ses avocats li mu amul avocat yooyu moo tax répondre ci affaire yu bëri mais tamit juge bi ko am na loo xam tamit boo ci répondre ëllëg peut être conséquences yi mën na la laal donc foofu tamit xaw na fa am jiixi jaax mais daal lii doon dëgg mooy avocat yi Ousmane Sonko yi ah bu ñu toogoon fii ah, balaa cinq minutes jeex parce que ñii ma gis nii non seeni wax àndul quoi taxawul taxawul ñi ngeen di gërëm bu baax